Serigne Touba la ñu doyloo réew mi réew mi Serigne Touba la fii la Serigne Touba bañ woon fii si biro Ndar la Serigne Touba bañ a woon fii la Serigne Touba waxee tubaab yi déedéet fii la Serigne Touba lanke woon fii la Serigne Touba demee si géej gi fii la Serigne Touba dellu see sàkk doomi aadama yi taxaw leen jàppale leen jox ñu indépendance